référentiel de développement bi nga xam ne nguur gu bees bi bëgg na ko doxal nag dana dem lu toll ci fanweeri at ñu duppee ko agenda national ngir soppi doxalin bi ci biir Sénégal horizon deux mille cinquante moom nag mu ngi wundu ñeenti tomb bi ci njëkk nag ñeel yorinu réew mi ak engagement yi nga xam ne nguur gi jël na ko ci diwaanuk Afrique loole nag mu koy jaarale ci gën a dëgëral lii di état de droit xeex ger soppi institution yi ba pare di leeral ci yorinu koppari réew mi ñaareelu tomb bi nag ñeel amal ay politique de développement durable yi nga xam ne dañ ko tasaare ci juróom-ñetti pôle territoire foofe nag ñu namm ci gën a dooleel infrastructure yi sàmm environnement bi ak alum bi naka noonu nguur gi bëgg itam gën a investir ci capital humain ak ci justice sociale loole nag mu bëgg ko jaarale ci gën a ñoŋal njàng mi ak njàngale mi ak itam lii di formation professionnelle gën a itam sellal service yi nga xam ne ñoom ñooy yore lépp lu jëm ci wàllum wérgu yaram ngir fexe ba bépp doomu réew mi mën a participer ci développement bi bi ci mujj nag ñeel koom-koom bi nguuru Diomaye nag li ñu bëgg mooy amal ab koom-koom bi nga xam ne am na doole ba pare di créer ay emploi loolee nag ñu bëgg ci sukkandiku ci secteur privé national bu am doole nga xam ne dina mën a téye croissance économique bi ci giir gu gudd noone la gis-gisu kii di président Bassirou Diomaye Faye ak ñi mu àndal tëddee ci plan national bi nag nguur gi bëgg ci yokk bu baax am amu doomu Sénégal yi ba pare fexe ba croissance économique bi mën a yegg ci six ba sept ci moyenne ak bu jot wàññi bu baax ndóol tabax itam réew bi nga xam ne dana moom boppam ci bépp fànn